euh, euh je pose cette question parce que le euh, président de Faye si ay postam ou si ay discours tout le temps il dit le président

donc attente bi dafa rëy ba nga xam ne man damay dama parfois est-ce que par exemple, pour gérer loolu yëpp sénégalais yi di leen même su vous ne ñoom tamit dañu war a jàppale projet bi nga xam ne nañ ko ba voté ko pousse en avant en commençant par travailler sur eux-mêmes. D'abord, je précise, nous <laughs> Sénégalais tous les problèmes vont être réglés. Mais ils pensent comme ça, en fait. Ils pensent comme ça. C'est pas que wax ngeen ko, mais ñoom espoir espoir boobu la ñu jàpp si yéen. waaw damay toog que dindi pensée boobu.

dañu teg lu ñu tuddee programme programme boobu li ñu nar yéene ko Sénégalais yi fa lañ ko bind mais binduñu fa tous vos problèmes seront réglés amul benn président bu ñëw mun a taxaw ne tous vos problèmes seront réglés. mais yaakaar day am tey Sénégalais yi ñor nañ ñor goo xamante ni suñ leen ko waxoon bu ñu tàccoo itam suñ duggee ci biir nekk dinañ dinañ def leneen ça c'est à préciser beneen bi mooy. Euh, pourquoi nga ni parce que le président Diomaye dafay tudd président Ousmane Sonko mais

suñu gis-gis foofu la wuteeg ñu bari c'est pas parce que forcément foog ñu jox la poste pour nga servir réew mi wala nga servir président loolu il faut que nit ñi dépasser foofu pourquoi nit ànd ak nit politique ba àgg au sommet yaakaar ni pour mu jariñ askan bi wala jariñ président bi foog ñu jox ko décret mais on parle d'Ousmane Sonko. non hein. waaw moom laay wax c'est non ça va au-delà. dama lay jox li nga xam ne état d'esprit bisu c'est Ousmane Sonko non non xam nga dafa wax ne. li tax mu koy wax président dama ko andi li tax mu koy président parce que président de parti là. mais le président élu c'est le président Bassirou Diomaye et qui est prêt à gouverner su fekkoon ni dafa am ci moom lu toll ni tal fatal ay ni lu mu pour téye mais kon duñ ko tànn mooy li ma wax sànq dis nga le choix c'est pas un choix par défaut. mais c'est important positionnement institutionnel. non non mais non non non mais image non non. <laughs> li am moy li am euh, c'est un projet bo xamanteni Le président Sonko a incarné porté ko ñu agsi ci élection ñom vraiment ils ont utilisé tous les artifices judiciaires pour que du nek candidat comme ñom dañu am fixation sur sa personne le président Sonko ne leen affaire bi du man affaire bi projet la est-ce que Diomaye était réellement le candidat de Sonko mooy question que je bëgg poser en tout cas tànn nañ ko. weesu nañ loolu dem na ci coalition. Sénégalais yi doyloo nañ ko ba tànn ko 54 pour cent au premier tour la question sur euh, ah, ah. taxawaay Sonko bëgg nañ aussi jàngat sur loolu ah, parce que. man am naa benn question am naa benn question de ci jàngatu. Euh. ci jàngatu élection bi ñu doon wax ne benn virgule rek. mooy en fait su ma xoolee su ma su ma jàngatee résultats yi par rapport ak performance yi nga xam ne candidats yi def nañ ko. si on revient ci élection élection ñoo fi mujjee jàll. ñaari élection ak kii bi ak municipal.